إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي الحمد لله ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci bim ñu wërsëgalaatee ñu mën a dajawaat guddeeg alxames te mooy gannaaw àllarba bi ci bisu àllarba bi muy tombe guddeeg alxames ñu dajawaat ci suñu jàkka ji ci waxtu wi doonte ne ni léegi mu jege ñetti weer biñ ci gëjee daje ci waxtu wi allahuma ñi ngi war a jël tey li nga xam ne mooy suuratul furqaan di saar boo xamee ne nii jotoon nañ ci jël ay bind ba war a yëg si tey ci fanweereelu aaye bi fi suñu borom di waxee ni وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا loolu kon bokk jullit ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di dimbilikoo njàngum ki nga xam ne mooy Cheikh Ousmane niñ leen ko doon fàttalee naka jekkit mooy dars bi ñuy joxe day jëkk a ëmb ku nekk ci ñun bu Cheikh Ousmane dee jàng mu déglu ko ngir ëllëg ki si biir mu mën a jàng noonu muy jànge gannaaw ba nag la ñuy doog a déglu tafsir bi ngir ngiree xam suñu borom yàlla lan la jublu ci loolu ñu jàng cay waxam kon ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk barakallahu fiikum suñu borom mu ni wa qaala rasulu wax na kii di yonent bi yaa rabb ay sama boroom inna qawmi ittaxadu haada alqur'ana mahjura sama xeet bi day jël nañ alqur'an ji doon lu ñu gàddaay won ko gannaaw wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwa naka nii lañ defal ñeel bépp yonent aduwa min al mujrimin benn noon ca defkatu bakkaar yu mag ya wa kafa bi rabbika haadiyan wa nasira waaye doy na ci sa boroom muy aji kuy jubal ay jaamam aji koy dimbali ay jaamam yu ko déggal wa qaala alladina kafaru yéeféeri ñi ngi wax ba tey lawla nuzila alayhi alquranu jumlatan waxida ana lu tee woon ñu wàcce alquran mu nekk benn tënk rek boo xam ne benn lay doon kazalika linusabbita bihi fuaadak naka nii de lañ ko wàccee mu teqali ko ngiree ñu saxale ci la nga xam ne moom mooy sab xol wa rattalnaahu tartiila ñun yàlla ñoo ko jàng teqalee ko la nga xam ne nii mooy ak teqalee muy tartiil kon mbokk julit suñu boroom subhanahu wa taala moom moo ñuy nettali la nga xam ne nii ab yonentam wax na ko bi ñu fi mujjee daje ci àllarba ji paase ci takkusaan suñu boroom ñi ngi ñuy nettali yowmal qiyaama yéef yéeféer bi ñu xisaab ba yóbbu ko sawara dana jël ay loxoom dugal mat ne aka neexoon ma ànd ak yonent bi ci aw yoon aka neexoon ma bañoon a topp sama xarit diw mi nga xam ne moo taxoon ba dund ma sunna suñu borom mu ne seytaane ngi noonu day taaralal doomu aadama di mébétloo doomu aadama ba mu yegsi nag ca fa nga xamee ne fa la yaakaaram nekkoon mu daal di koy won gannaaw loolu mbokk luñ ciy déggee mooy képp koo xam ne am nga xel galla waaye gëstul fan la yonent bi jaaroon nga jëm ko topp duñ la laaj yowmal qiyaama leneen lu dul loolu jeex na yonent boobu nag mu ne ay sama boroom alquran jii nga ma jox day nit ñi won nañ ko gannaaw mbokk won gannaaw alquran ba ca gën a màgg mooy ni ko yéeféer yi defe te mooy bañ koo gëm képp ku gëmul alquran sawara nga jëm suñu borom nee na wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu yahud chrétien yi kum mën a doon ci kuy dund ci kaw suuf alquran ñëw nga weddi ko wan ko gannaaw sawara nga jëm loolu jullit du sikki sàkk ci dóoru waaye gannaaw loolu ñooñee nga xam ne nee nañu gëm nañu alquran ñu bari it dummóoyu nañ alquran ci doo leen fekk mukk ñu toog di jàng alquran gala waay julit yàlla may la xel ba sa mbiri àdduna nga mën koo lijjanti bam na kocc ngalla waay góorgóorlul jéem a bokk ci ñi mën a liir alquran boo ci dogoo rek yàlla jàppale la boo ci dogoo rek yàlla jàppale la aka bari ñoo xam ne bi ñuy dal jéeme liir am nañu cinquante ans soixante dix ans yàlla jàppale leen ñuy liir alquran soo demee ba bokk ci ñi mën a liir alquran ngal la waay bul toog mukk bis ba bis ba jeex ci ubbi woo ci téere bi yàlla bi borom xam-xam yu jëkke yi dañ daan sip ab jullit nekk ak téere bi yàlla bi ci këram wala ci fu mu mën a doon vingt quatre heures plein ubbi wu ko benn yoon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñuy jël téere bi yàlla bi di ko jàng tey suñu borom yàlla teg na ci ñun xujja xujja lan mooy lay ndax kenn ci yéen tey xalaat na portable am mu téye ko vingt quatre heures yoo xam ne ubbiwu ko benn yoon ndax kenn ci yéen ba mu amee portable tey mës na ko def vingt quatre heures yoo xam ne ubbiwoo sa portable abadan kenn ci ñun xalaatu ko noonu it mbokk téere bi yàlla bi noonu la war a demee dañ ko war di ko jàng loo ko gën a jàng xéewal yi gën a bari loo ko gën a jàng xéewal yi gën a bari sahabatul kiram dañoo saxoon di ko jàng ba yonent bi di leen freiné naan leen attention ku jàng alquran lu yées ñetti fan doo ko comprendre la ëppoon ca ñoom par semaine lañ ko daan jàng semaine bi dañu wàcc kaamil mi ngi noonu ca jàngkat ya ña gënoon a digg doomu ca ñoom mooy ña nga xam ni amoon nañ kersa ci dugg weer ba weer ba jeex ci ca jànguñu ci ab kaamil mi ngi noonu dugg weer ba weer ba jeex ci jànguñu ci ab kaamil amoon nañ ci kersa te loolu mbokk boo ko xoolee day nekk à peine vingt pages par jour mi ngi noonu loolee kon di mbir moo xamee ne nii dañ cee war a bàyyi xel waaye mbokk julit moo amit beneen gàddaay mooy gàddaayu ñàkk xam lu alquranul karim ka bari tey ci julit ñi ci penku jant sowu jant foo leen fekk kaamil bu jeex ñu ñu dóor beneen daara yaa ngay jolli xale yaa ngay mokkal waaye nag ndax la yàlla subhanahu wa taala waxoon kitaabun anzalnaahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayaati yàlla mu ne ba may wàcce alquran dama ko wàcce ngir yéen ñi settantal ay aayaam xam la ci yàlla digle taxaw ca xam ay ndigal yàlla bàyyi ko loolu li ëpp ci juri si tey dañ ko woon gannaaw ba baa nag muy yegg si nag ca la nga xam ne muy jëfe alquran mooy lépp loo xam ne sa wàllu dund la nga tënku ci ca alquran loolu it da ngay gis ni la gën a néew ci néew ci juri di ñoo ca def bokk na ci la nga xam ne nii la ëpp ci ñoom wan nañ ko gannaaw muy atte yi nekk ci alquran te ji quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci pays jurit yépp atte wa alquran jël nañ ko wan ko gannaaw mi ngi noonu ala kulli xaal yow julit xamal ni alquran dañ koo war a gëm dañ koo war a jàng dañ koo war a settantal dañ koo war a jëfe dañ caa war a woote yii mooy mat sa ñàkk wan gannaaw alquran doog a mat bal boo demoon ko mel ni ibnul qayim al jawzi dana koy lim ba boole ca ay feebar sax di ñàkk musloo ci alquran di motti sa bopp ci fatiha ci ayatul kursi ci al muawisat mu ne loolu sax bokk na ci gàddaay alquran kon bokk dañoo war a takkoog alquran borom bi nag ne yonent bi bu mu la naqari lii la métti ca mooy xeet yépp wala lañ ko gannaaw mboolem yonent yi fi ma sa ñëw nii laa leen boole woon ak ay kàccoor yoo xam ne ba yonent bi dee wooti ci njub ñoom it ñi woo nit ñi ci ak réer te loolu mbokk ba sun jamono tey ji jëlal sa temps nga taal télévision Sénégal rajo Sénégal ngay déglu ña nga xam ne ñooy wax ci diini la ñuy wax nga mingi la ko ak la nga xam ne mooy alquranul karim wallahi dafa safaanoo complètement lu dul ñu néew a néew ne yàlla subhanahu wa taala dëppale ak ak ngërëmam li ñuy wax lu safaanoo na ak alquran borom boobu nag subhanahu wa taala ne doy na ci sa borom muy haadiyan wa nasira bu mu la metti sa borom mooy jubal ku ko neex ñaan ko alhidaaya mooy dimbali ku ko neex ñaan ko mu dimbali la lii mbokk yàlla da ko farataal ci ñun dix-sept fois par jour sans naafile yi ñu taxaw ci kanamu borom bi ne ko yàlla iyaaka naabud wa iyaaka nastain ay ihdina sirat al mustaqim yàlla muy dimbali kon yàlla iyaaka nastain yàlla muy jubal ihdina sirat al mustaqim kafa bi rabbika haadiyan wa nasira loolu mbokk itamit ku nekk ci julit war a bàyyi xel ci ni alquran ngi ni heure boo jógee ne dañ koy jëfe noonu yàlla yi daañ la gàllankoor waaye saxal ci njub gi ñaan yàlla saxal la te it nga ànd ak xel mu dal ne yàlla dana la jàppale borom bi wëlbatikoo nekk ci lañu yéeféer yi xam ngeen suñu borom bi muy wàcc tawraat benn yoon la ko jox yonent yàlla Muusa bi muy wàcc injil benn yoon la ko jox yonent yàlla Isa ñu ne waaw moom nee na téere bu jóge asamaan la yor lu tee woon alxuraan di ñu wàcce ko benn wàcce rek suñu borom ne nii day ñoo ko def wàcce nañ ko di la ko jàngal nànk-nànk mu nekk tartiil ngir ñu dëgëre la ci sa xol ca loolu mbokk dañuy gis moo ëpp xéewal téeméeri yoon la yàlla dafa tawraat ak injil bu doon yàlla bi muy formé xeet bi daa xëy xëy rek wàccendoo alquran da ngay gis ne maîtrise ba ca sahabatul kiram amoon dana manqué bu baax a baax te tey jii da ngay gis xatta maître bu mu mën a doon professeur bu mu mën a doon programme mu école am da koy utal programme xale yi mu leen di jàngal nank nank nank nank waaye du ñëw jël programme yëpp jur seen kanam waaye li suñu borom subhanahu wa taala wax ne li nu sabbite bihi fuaadak loolu it ndekete day wañe ne mbokk julit alquran nga di ko jël loolee day saxal sab xol ku la gën a gëj ci njàngalem alquran ab xolam moo la gën a sàggan ab xolam moo la gën a wow loolu moo tax ba ñuy sabablu àllarba bu nekk ñu daje fii ak téere borom bi fàttali ko ci loo xam ne day dëgëral suñu xol li nu sabbite bihi fuaadak muy wane ne it sa ngëm lu mu dëgër dëgër dëgër da ngaa soxla lu lay encouragé amul nag lu gën a mën a encouragé julit lu mel ni téereb yàlla bi heure boo dégloo xurafaat yi nit ñi di wax heure boo déggee tëkk yu jóge ci yéeféer heure boo jaaxlee heure boo jàqee na doon nattu la da ngaa deelee da ngaa ñàkkale dañ laa dàq ci liggéey lu mu mën a doon nga jël téereb yàlla bi di ko settantal doo fa jege lu dul yàlla féexal sa xol li nu sabbita bihi fuadak moo tax suñu borom ni warattalnaahu tartila donte ni li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo jàpp ni alquran benn yoon la wàcc ci asamaanu benneel ci guddik laylatul qadr gannaaw ba nag événement buy am suñu borom woo jibril jox ko aaya yi mingoog événement boobee ba baa ñaar fukki at ak ñett ya mat nam wàcce woon benn guddi mu daal di jeex takk yàlla jibril alayhi salaam wàcce ko ci xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
ولا يحكمون كلمة إلا بالناس بالحق وأحسن تنفيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبعنا تكبيرا barakallahu fiikum suñu borom kon mu ne wala ya'tuunaka bi masal duñ la indil benn misaal bu ñuy dàgg santeeg yow illa ji'naaka bil xaq lu dul ñu dikkale ci dëgg wa ahsana tafsira ak la gën a rafet ci am firin alladina yuxcharuuna ala wujuhihim ila jahannam ña nga xam ne dañ leen dajale ci seen kaw kanam ya ñu jëm ca jahannama ulaika charrum makana ñooñ de ñoo yiis place wa adallu sabila ca gën a sànku ci aw yoon wa laqad aatayna muusa alkitab ñun dey joxoon nañ muusa téere ba wa ja'alna ma'ahu wa axaahu haaruna wazira def ñeel ko doomu ndeyam ja haaruna mu nekk ndimbalam bu koy jàppale فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ñu ne leen dem leen ci xeet bi weddi suñuy aaya fa dammarnaha tadmira ñu daal di leen di mokkal ak mokkal ay alak leen ak alkaange wa qawma nuuhin lamma kazzabu rusul ka nga xeetu nuux bañ demee ba weddi yonente ya ëgraqnaahum dañ leen a labal mboole seen wa jaalnaahum linnaasi aaya ñu def leen ñeel nit ñi kawteef wa aatadna li zalimina azaban alima ñi ngi waajal tonkat yi mbugal mu tar wa aadan wa samuuda wa ashaaba ras wa ashaaba ras naka noonu waa aad ak waa samuud ak ña nga xam ne ñooy ashaaba rasi am ñu ne dañoo sànni woon seen yonent ca teen ba ku mel ni ibnu jarir altabari danaan mooy ashaabul uxdud wa qurunan bayna zalika kasira la nga xam ne mooy maas ya diggante loolu lu bari la wa kullan darab darabna lahu l amsal képp kenn ci ñoom dóor nañ ñel ko ay misaal wa kullan tat tabbarna tatbira képp ci ñoom alak nañ ko ak alkaange mi ngi noonu bokk suñu boroom kon mu ne li tax alquran wàccewu ko benn yoon indi na ko ngir heure boo jàqee heure boo tiisoo bu aayay wàcc dalalaat sa xol yeesalaat sa ngëm mi ngi noonu waaye bokk na ci it yéeféer yi bu doon dañ leen a wàcceel kaamil boo xam ne mat na un million de page it du tee ñu indi ay question ak i lay ak i dingat loolu tax suñu borom bàyyi ko noonu ba misaal buñ la dóoral rek yàlla indi la tontu ba nga xam ne moo gën a méngoog moom moo tax soo demee ci téer bu yàlla bi ay yooni yoon yaa ngi dégg yasaluunak masalan yasaluunak masalan yasaluunak anil jibal waaw muhammad nga ne suuf bi day dañ koy mokkal waaw montagne yi nag naka lay demee qul yansifuha rabbi nasfa tel yàlla dana ko teggi mokkal ko ak mokkal yasalunaka an zil qarnayn yasalunaka an ruux yasalunaka an nangam mooy façon laaj diingat bu nekk la nga xam ne mooy yéefiri laaj nañ ko yonent yàlla waaye fuñ ko mas a laaje rek yàlla indi aaya yu méngoog tontu boobee moo tax mu ne duñ la dóoral benn misaal lu dul ñu indil la la nga xam ne moo koy leeral waaye indi liit la nga xam ne moo koy tafsir te it mbokk julit nañu xam ne téere bi yàlla ko wàcce yàlla moo koy leeral leeral googee ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaare tey jii boo dajale woon doctorat ya gën a kawe ci grammaire arab doctorat ya gën a kawe ci li nga xam ne mooy langue lépp mënoo fexe ba comprendre alquran lu dul da ngaa dellu ci sunna loolu mbokk moom mooy tafsir loolu moo tax ba jàng alquran kese ba mokkal ko taxul abadan nga xam diine yàlla ci tànk tafsiru luñ la looloo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan dajeeg sahaaba ya sahaaba yi nee nañ daanañ jël ci moom fukki aaya jàng la nga xam ne mooy wax ja déglu mu leeralal ñu tafsir ya ak lañ ca war a jëfe buñ demee ba mokkal ko doog a ñëw jël yeneen fukki aaya noonee ba mu fi jógee sahabatul kiram di ko leeral génération yo topp ca moom bokk na ci tafsir yi jëkk tasaaroo la ñu tuddee tafsir mujahid nga xam ne ibnu abbas mi yeneen ci bari sam ne mooy fóore xeet bi moo ko jàngal mu ne toog nag ibnu abbas ñaari yoon ñu jël kaamil bi commencé fatiha baqara ba naasi aaya bu nekk taxawul naag ca aaya ba laaj ko ca mu leeralal ma ay leeral ñu doog a dem ci beneen loolu mbokk mooy tafsir déggal quran loolu tax ñu naan leen ko mel ne Umar ibn Khattab juróom-ñetti at def na ko ci suratul baqara loolu du pour njàng mi rek pour réciter ko déedéet waaye pour digg ko da ngi noonu loolu mooy la nga xam ne mooy tafsir bi ibnu masud doon wax wallahi amul benn aaya alquran lu dul xam naa ko mu wàcce xam naa lu tax mu wàcc xam naa it li mu jublu su doon te ne kaw suuf tey xam naa ci koo xam ne moo ma gën a dégg téereb yàlla bi te su ma dajalee li ma yàlla wërsëgal yépp mën a tukki fekki ko kon day danaa tukki fekki ko ngiree mu leeralal ma téereb yàlla bi lokk loolu mooy tafsir ahsana tafsira mu lay wañig yow ndawal julit wareef la ci yow nga xam sa téereb boroom boo maîtriser sa téere borom amul kenn koy discuter mu lay dingat ci diine lu dul da nga am aaya boo xam ne nii da nga ko mën a delloo ci moom mi ngi noonu amul lenn loo xam ne benn discussion la bu muy indi ci wàllu diine ca nga xam sa tiire boroom lu dul dana ca am aaya boo xamee ne nii mën nga caa sukkandiku ba noppi loo ko wedam loo ko ah daal di koy yey ndax loolu moo tax yàlla wàcce ab téeréem wala yaatuunaka bi masal amul lenn loo xam ne dañ la cay indi critiqué lu dul ñu indil la tafsir ba gën a rafet waaye ne sa xel dal loo waaraate waaraate nit ñi mënoo fexe bañ gëm abadan borom bi nag ni tey de yéefar yi ci kaw suuf ñi ngi reetaan jullit ñi naan xoolal ñii dañoo ànd ak yàlla amuñu dara tekkiwuñu dara waaye allaaxiraa ngi ñëw ba yàlla dajala mbooloo mi ba teqale leen keroog la ñuy jël yéefar yi ci seen kanam lañ leen di taxawal ñi leen yàlla taxawale seen tànk seen kanam yi dëpp ci kaw suuf ñu leen di fang ñu jëme ca fa leen di yàlla dara àtte leen ci saxaaba yi ne waaw yu mu yàlla yónni ak kanam moom nuñ cay taxawi mu ne yàlla mi leen taxawal seen tànk moo leen di taxawal ci seeni kanam loolu la ñuy xàmmee yéefar yi ëllëg yawmal qiyaama lu tax diine yàlla ji daa ñëwoon ñu dëppoon ko gannaaw noonu it yawmal qiyaama noonu la leen yàlla di dekkal kanam yi moo naan dëpp ci kaw suuf nekk ay tànk tànk yi na coll ca kaw malaaka yi di leen bëmëx di leen diri jëme ak jëme jahannam borom bi mu ne ni ñooñu ñoo gën a ñaaw place te ñoo gën a réer aw yoon ca nag la commencé di indi ay génération yi fi jaaroon ngir dëgëral xolu jullit ñi ci ne yow nga nekk ci dëgg ñu weddi la loolu du bees tey ci kaw suuf waaye ñi nga xam ne ñooy saay-saay yi te fettirlu lu mu yàgg yàgg yàgg yàlla dana am fu mu jaar ak ñoom mu indi ci misaal yonent yàlla Moussa nga xam ne histoire am moo gën a tasaaroo ci téere bi yàlla bi nee na maa ko yónni jox ko téere muy téere bi gën a màgg gannaaw alquran muy tawraat defal ko doomu ndeyam ja Haaruun mu nekk wazir mooy ku koy dimbali tey boo demee wazir dañ ko wax ministre mooy mu sës ci moom nekk jëwriñam di ko dooleel nekk yonent comme moom yàlla ne leen dem ñeen ci xeet bu tooñ bee muy firaw nak notable am dañoo weddi suñuy aaya suñu borom nee nañu weddi ma alag leen ak alkaange te mooy yàlla da leen a wootal ba géej labal leen boole seen ñu jiitu loolu mooy xawma nuux suñu borom nee na dañoo weddi yonent ya gaa yi yonent yàlla nuux la yàlla jëkk a weddi subhanallah yàlla jëkk a yónni xeet bi weddi mu labal leen lu tax nag ni yàlla ne dañoo weddi yonent yi mbokk yonent yi ku ci weddi benn yonent weddi nga ñëpp moo tax suñu borom ni xaw mu nuux weddi nañ yonent yépp ndax mboolem yonent yi ñëw gannaaw nuux waxuñu lu li nuux wax kon maadaama weddi nañ nuux weddi nañ yonent yépp kazzaba rusul waaye yépp maa ngi lay bégal ci yow julit nga xam ne ki nga xam ne dafa weddi benn yonent weddi na yonent yépp comme ni ma leen ko waxee ci nuux muy wane ni it tey jii kii ni juif la chrétien la gëm naa Moussa gëm naa Isa waaye weddi na yonent yàlla Muhammad déedéet weddi na Isa ibnu Maryam weddi na yonent yàlla Moussa amul kuy weddi yonent yàlla Muhammad du leen weddi nga Moussa weddi nga Isa Moussa waxoon ne ne Muhammad mi ngi ñëw Isa waxoon ne Muhammad mi ngi ñëw dalika masaluhum fi tawra wa masaluhum fi injil képp ku weddi Muhammad weddi nga Moussa weddi nga Isa waaye it yonent yooyu ku ca weddi benn weddi nga yëpp gaa yi ku ca dolli benn nag ku ca dolli benn weddi nga yëpp amul kenn kuy saxal ne bilal càmme yonent yàlla la lu dul weddi ne mboolem yonent yi ko jiitu woon moom laa ñu mee tudd nag waaye Sénégal ñaata yonent la ñu am mi ngi noonu Sénégal gii ñi fi wooteeg yonent xaw nañoo jege juróomi yonent wala bu ko bu ko ëppul waaye wallahi lazi la ilaha illa huwa képp ko saxal ne yàlla yónni ne beneen yonent bu dul yonent yàlla muhammad gannaaw bi suñu borom yàlla waxee ne muhammad du bàyyi kenn ci walakin xaatama nabiyin moo tëj liste bi nga ne déedéet kii ci la bokk yaag kee nga xam ne dane weddi na Moussa wala Isa wala weddi na muhammad yéen a yem yéen ñépp weddi ngeen waxi yàlla loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax su doon damay wax Mauritanie fa laay yem Arabie Saoudite fa lay yem Philippines fa lay yem waaye bu may wax Sénégal danaa ci dolli ne képp ku jàpp ne Muhammad moom di xaatama nabiyin moo dellu si waat encore judduwaat am fi famille yàlla defaat ko deuxième yonent yaa ka weddi yonent yépp yéen a yem saxal nga yàlla lu yàlla waxul yonent yàlla waxu ko xel nanguwu ko mi nga noonu yàlla waxu ko yonent yàlla waxu ko am xel mu rafet nanguwu ko yonent bay faatu woon saxaaba yi jël ko suul ko ca xabroom ba ca madina ñu ne yoo ñetti fan la fa def jóge fa léegi nag judduwaat na encore ñëwaat na encore bokk loolu xel nanguwu ko avant sax diine di ko nangu amul loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax kazzaba rusul weddi nañ benn kon weddi nañ ñëpp dolli nga ci benn weddi nga ñëpp borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñooñu day alak naa leen def leen misaal ñeel ñiy ñëw seen gannaaw mboole seen mboole mi xeet di ñëw yonent yàlla noox moo leen jiite borom bi nag ni képp ko tooñ nañ tooñe woon mbugal mu tar danaa dana ko xaar gannaaw noox yàlla indi na fi waa aat waa samuud waa asaba ras dégg nga li ma leen wax ci ñoom ak ay xeet yoo xam ne bari nañ lool suñu borom yàlla nee na minhum man qasasna alayka minhum lam naqsus alayka soo demee ci borom xam-xam yi dañ naan ñi yàlla yónni ci ay mursalin nekk nañ plus de ñetti téeméer ak nangam anbiya yi moom nekk nañu ay junni waaye mursalin yi nga xam ne dañu indi risaala yàlla yónni leen ci xeet nekk nañ plus de trois cent qurunan bayna zalika kathira borom bi nag ne amul kenn ci ñoom lu dul avant ma lay alak indil naa la misaal yu leer nañ yuy xamle ne yàlla kenn la kii yonent yàlla la alaxira am na ba ñu fittirlu ca laa doog a ñëw nag tabbarnaahum tadbira alak leen ak alkaange mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا jazakumullahu xayra suñu borom kon mu ne wa laqad ataw ala alqaryati allati umtirat matara saw ñoom day dikkoon nañu te dëkk ba nga xam ne dañ faa tawal taw bu bon ba afalam yakunu yarawnaha xanaa ñoom nikku ñoon di gis loolu bal kaanu la yarjuuna nushura waaye li am kay ñoom yaakaaruñu woon ni dañ leen dekkalaat wa ida raawuka in yattaxiduunaka illa huzwa fuñ la mas a gis duñ la jàppe lu dul lu ñuy yëj di la saboote a hada alladi baasa allahu rasula ndax kii mooy ki yàlla yónni mu nekk ab yonent in kaada la yudilluna an alihatina moom day xaw nañoo sànq ci suñu yàlla yi lawla an sabarna alayha su dul woon ak dañoo muñ rek téye yàlla yi wa sawfa yaalamuuna xiina yarawna al azab waaye xel sa nañoo xam bis bu ñu gisee mbugal mi man adallu sabila kan mooy ki gën a sànku ci aw yoon araayta man ittaxada ilahahu hawaahu ma tax gis nga ki nga xam ne daa jël yàlla mu nekk bànneexu bakkanam afa anta takuna alayhi wakila ndax yow yaay nekk ka nga xam ne yow yaa koy garantir di gàddu ay mbiram am taxsabu anna aktharuhum yasma'un aw yanqiluun wala boog jàpp nga ne li ëpp ci ñoom ñi ngi dégg wala ñi ngi xellu in hum illa kal an'am ñoom nekkuñu lu dul ne comme bàyyuma yi rek bal hum adallu sabila bal ñoom ñoo gën a sànku bàyyi may ci aw yoon mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ni moo alak qawmu nuux firawna wa aad wa samud ak ña topp seen gannaaw mu ne waaye yéen waa makka xanaa dikku leen ca dëkk ba ñu tawoon taw bu bon ba ca loolu mbokk mooy xawmu luut bi dëkke woon ci côté Jordanie nga xam ni waa Makka heure bu ñu daan dem Syrie dañ daan romb seen dëkk ya seen maam yi it xamoon nañ ñi fii musiba bu rëy yàlla mas na ko fee wàcc waaye malheureusement seytaane da doon taaral seen xol ni lii lii bi maam yu jëkk yi rek la xawma luut ñoom ñoo jëkk a feeñal ak ngóor jigéen ci kaw suuf bañ ko demee ba yàlla yónni ci ñoom yonent yàlla luut ñu fecceerlu suñu borom lan la def ak ñoom mbugal leen mbugal boo xam ne mosu koo mbugal kenn ci ay jaamam yàlla jëkk naa maasale seen bët ya mu ne tamaas ba ñu xëyee suba yàlla tawal ci ñoom ay xeer min si jiilin man duur xeer yoo xam ne safara la jóge mu ñëw fokk seen bopp ya gannaaw ba nag yàlla doog a déq ci région ba ci jaamam ba ñuy wax jibril déq ci région ba ba ci kaw dëpp ko mi ngi noonu mutafikaat dëpp leen jaal na aliha saafilaha xanaa ñoom gisuñu ñooñ ñu tawaloon taw bu bon ba mi ngi noonu xanaa ñoom nekkuñoon di ko gis waaye lan mooy problème bi dëgg-dëgg mooy dañoo yaakaar na bu ñu dee dëkk mbokk lii mooy séparation bi gën a rëy ci diggante jaami yàlla yi ki gëm allaaxira ak ki gëmul allaaxira ki gëm allaaxira xam ne man lu mu mas a def fii damay rendre compte allaaxira ku mel noonu mbokk da ngay gis aw doxalinam dana ko seetlu ndax day xam ne du tey rek a compte ëllëg ngi ñëw mais ki gëmul allaaxira da yàpp tey rek la nu ma mën def ba tey baax jeex na doonte ne am na ñettiilu groupe boo xam ne moo ci dolleeku te ñu ngi ànd ak groupe bu bon ba bokk am na ñoo xam ne gëm nañu àllaaxira waaye nuñ gëmee àllaaxira moo di ne ne sëñ diw mi ma yaakaar day su may dee moom dana mu yóbbu àjjana sans problème dañ koo gëm ni ñu gëmee ne juri mi baaraama nekk seen loxo loolu leen neex def sëñ diw laa yaakaar su ma dem yóbbu ma àllaaxira loolu tax ñu mel noonu drogo misigo lekk ali ribaam lu leen rey nit lu leen neex def parce que am na garantie buy wane ne ñoom àddina lañ jëm directement loolu tax suñu borom ne bul sonn ñoom dañoo yaakaaru lu shuur mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala moom la ñuy wax ci yeneen aaya mooy wa anzir bihi allazina yaxaafuun an yuxcharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi shafiun waliyun wala shafia waaral ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ragal bis bi ngi ñëw ñu yóbbu leen seen borom te buñ demee amuñu kuñ fay yaakaar kuy taxaw di leen layal mbokk ko mel nii da nga def lu jub mais boo xisee ba am garantie ne man c'est fini su ma demee diw dana jël sama dossier tabal ma àjjana amatoo looy ragal kon borom bi nekk li waral loolu mooy laa yarjuuna nushura ñoom yaakaaruñ ne dañ leen di dekkal moo tax ba bokk na yéefir luñ daan def buñ gisee yonent yàlla bi ne xoolal rek xool ko moom kat nee na moom la yàlla yónni mbaa ko kooku mooy kan yonent yàlla bi nga xam ni amul woon ay tool amul woon alal ju bari amul woon dara ci alal këram dañ naan toog ay fan cin du fa takk yorul woon ay mbubbi buur yorul woon tekkaayi buur ñu ne kii nga defe ne bu doon bu doon bu doon nit waaye yàlla dana ne nii mu mel gis ngeen erreur boobu nag da ngay gis ne seytaane dabantal na ko ci xeet bi seytaane lu mujj def mooy nit yàlla dëgg-dëgg ñépp war a jël misaal ay toolam wurul yem ak tooli kenn ay wotoom wurul yem ak wotoy kenn château yi muy dëkkee wurul yem ak château yi kenn bu ko defee ñu loo nga xam ah kii moom nituk yàlla la waaye mbokk mu safaanoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i sahaaba yonent boobu nga xam ne ibnu musayyib bokkoon ca imam yaka remplacé ca jàkkaam ja jiitu woon ñoom imaamu malik keroog ba ñuy dugal kër yonent bi ci jàkka ji di ko toj mu ne akama am lu ma métti su ma sañoon dañ koy bàyyi bi génération yi di ñëw xam na yonent bi doon dundee kër goo xam ni kër gu yeme may la kër goo xam ni nii da ngay gis ne ay bant ak ay yëpp moo nekk ci ci kawam néeg Aïcha bu yone bu Aïcha tëddee yonent bi balaa sujud da koy fëgg ñu ngi noonu te jamono boobu château yaa ngi nekk ca Éthiopie château yaa nga Syrie château yaa nga fu nekk ñu ngi noonu yonent bi gis ngeen Omar ibn Khattab ba mu ko tiimee di jooy xool néeg bi xool kër gi xool gis mbuusum pepp jooy mu ne ko waaw Omar lu xew mu ne ko waaye sama xel dafa dem rek ci ñi nga xam ne ñoo yor ay château nangam yow yaay tànnee fi yàlla ci kaw suuf mu ne ko waaw Omar mbaa di da ngay bëgg a am sikki sàkk mu ne waaw mu ne ko Omar gërëmoo ñoom ñu moom adduna ñun yàlla jagleel ñu àllaaxira mu ne ah kay mu ne ko kon lool la bokk ci moo ne kon yonent ci yàlla bi yàlla proposé woon su ko neexoon mu defal ko montagne or mu nekk nguur te du ko yàqal dara ci yàlla waaye da ngay gis ne dafa bëggoon nekk exemple suprême waaye it yéeféere ñoo perte biñ naan kii la yàlla tànn yonent gaa yi ndax yàlla xamul fu mu def ak yonentam wallahu aalamu xaysu yajalu risalata kooku ñu doon joxoñ mooy ngën ji mbindeef moo gën ci koy teg tànkam ci kaw suuf gënoon a ragal yàlla ñëpp ëppoon kersa ñëpp gënoon a ñeme ñëpp gënoon a tabe ñëpp dàqoon a jaamu yàlla ñëpp ña gënoon a jàmbaar ci sahabatul kiram kenn mësul ànd ak moom ci naafilu guddi lu dul ne da nga ko rëccu buñ ma saan dem ba xeex tar ci jihaad jàmbaari góor ali ibn bi talib nee na ñun ñëpp daanañ rëppaliyu ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki yàlla subhanahu wa taala matal ci mboolem loo xam ne lu ñuy tagge doomu aadama la moo tax yàlla tànnal ko muhammad muhammad mooy ki dajale mboolem lu ñuy sant doomu aadama kon ñoo perte biñ naan hada alladi baasa allahu rasula ñu noonu yàlla kam def yonent mooy ngën di yonent yàlla tànnal ñu ko loolu moo tax ba yow julit koo koy sorowikaay kooku ngay jéem a mel ne moom kooku ngay jéem a roy ci biir ak biti ngir xam ne ne in tuuti uuhu tahtadu amul ku koy jéem a roy lu dul da nga baax da nga jub te da nga texe àdduna da nga texe àllaaxira ñu ne waaw ñun bu ñu bu dul woon nag ni dañoo muñ ci suñu yàlla yi sax xaw nañu réeral ndax wax yi ñuy wax ah te moo ko gis ngeen yeneen ci yàlla bi di ko yàlla di wax loo yéefar yi mënuñu cee teg baat convaincre na leen waaye ëgg rëy ak parparloo léeg-léeg kenn ci ñoom naa waaye kii li muy wax dëgg la kat waaye seytaane taaral la mu ne bu dul woon dañoo muñ suñu yàlla yi sax daañ bàyyi yàlla yi ba dem toppi ko te loolu it mbokk yàlla nañu yàlla musal ci ak réer doomu aadama da ngay yegg ci rëy be boo gisoon yoon bii nga xam ne boo ci saxee safara nga jëm ak rëy mën na la caa saxal yàlla moo ko wax mu ne la charu dalalati bil huda wal azab bil maxfirat fama asbarahum ala naar yàlla mu ne am na ci jaami yàlla yoo xam ne gis nañ yoonu jub ñu ne ko fa ñukk topp yoonu réer jël la nga xam ne mooy fii bu ñu fa jaaroon yàlla jéggal leen tabal àjjana waaye réy ga ñu réy tax ñu weccee ko yoon ba jëm sawara suñu borom mu ne fama asbarahum ala naar e wàññi ko leen gën a mën muñ sawara waay di nekk ci loo xam ne wóor na le boo ci dee sawara nga jëm yaa ngi dégg waaye intérêt àdduna tax nga sax ca moo tax ñu ne lawla an sabarna alayha bu ñu muñul woon dëgg dëgg dëgg waaye kon dañ bàyyi suñu yàlla yi su topp ko mi ngi noonu su ko defee kon mbokk ñu bàyyi xel bu baax yàlla nañu yàlla woon dëgg te wërsëgal ñu jaar ci loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag ne xalsa na ñoo xam su ñu demee ba jàkkaarloog mbëggalum yàlla ana kan mooy ci gën a sanku ci aw yoon mooy yeneen ci beeg ñi ko topp ak ñoom waaye yow yeneen ci yàlla bi bul jaaxle xoolal ki nga xam ne bànneexu bakkanam mooy yàllaam ndax yow yaay mën a gàddu ay mbiram ca mbokk xam leen ni la gën a màgg lu ñuy jaamu ci kaw suuf mooy bànneexu bakkan rawatina suñ jamono ci ji ñu dund génération yu jiitu dañ daan jaamu ay xeer la ëpp ca ñoom ñii di jaamu jant bi ñii di jaamu weer bi ñu ngi noonu am na ñu koy jaamu ba tey soo demee dafi indien ñi ngay jaamu nage waaye Thaïlande ñi ngay jaamu ay golo ñii ñi ngi jaamu leneen leneen leneen mais tey li ëpp ci doomu aadama yi rawatina en Occident jaamuwuñu lu dul seen bànneexu bakkan ñu ngi noonu jaamuwuñu lu dul seen bànneexu bakkan yal na yàlla yërëm suñu mbokk ba maam Ali Guèye borom benn loxo bi ñu nekk lu mu ci jàkka ci doon na dawalal benn tubaab heure bu ñu rek fekk muy julli mu ne ko muy Guèye qu'est-ce que tu fais comme ça mu ne ko non man damay julli julli bi sama yàlla mu ne ko yàlla bu naa bu génne pochette bu la man kii mooy sama yàlla dafay dolaaram leen man ci mooy sama yàlla ca mooy bànneexu bakkan li ëpp ci nit yi tey it mbokk bànneexu bakkan boobu la ñuy topp ca mooy dafa neex bilal caam la yaakaar jeex na lu la neex nag def topp sa bànneexu bakkan par jàpp ne bilal caam nga yaakaar borom bi nee na ku mel nii ku koy garantir mbokk àllaaxira amul ku fay garantir kenn ku dul yàlla mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yowma idin lillah yàlla dogal na démb ñi ngi gunge woon yoof koo xam ne soxna Xadi Jóob sunu yaayu soxna la yàlla na yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko fiñ ko doon robe ña ngi fa tombeeg benn rob ay kilifa yu bari ci ni ñuy tudd ci réew mi ñu wax fa si ñu wax fa seeni tur bi ñuy defee seen ñaan kilométrique yooyu ñuy def ba pare ñu léegi li ci des nag nañ bàyyi suñ juumu war lool ko yaa ngi dégg nañ bàyyi juumu war lool ko mbokk kan mooy warlul ku dul yàlla jalla wa ala kan mooy warlul ku dul yàlla jalla wa ala loolee suñuy wax rek la borom bi nag ne kii topp bànneexu bakkanam ba faatu afa anka takuna alayhi wakila ndax loolu yéen yow yonent yàlla yaa koy garantir mi ngi noonu suñu mbokk Ousmane Gallaajo ko xafizahullah xaw nañoo mës a jël bakkanam ci benn rob bu mu fekkee ba demee ba suul ba pare waa ji ñëwoon ne waaw sëñ bi de ma ma yónni nee na jarul ñu koy ñaanal moom warlul na ko dana dem ajjana mu ne waxul dëgg de yaa ngi dégg gars yi gars yi keroog mi ngi noonu tuuti tey yàlla jël fa bakkanam gis ngeen ala kulli xaal loo loo suñu wax la wax rek la afa anta takunu alayhi wakila borom bi nag ne waaw léegi nag yow ndax yow jàpp nga ne la ëpp ci ñoom daañu dégg wala la ëpp ci ñoom daañu xellu bal ñoog bàyyi muy ñoo yem te bàyyi ma yi sax ñoo leen tane mbokk li ëpp ci doomu aadama yi jëfandikoo wuñu seeni xel sëriñ bii nga xam ne tey jii wallahi boo faatu woon suñ demul ne ko sëñ diw faatu na du xam ndax faatu nga am faatuwul am déet bu ñu ko daa ah ah il ne kañ la faatu loolu lay wax ba gars yi kii nu mu la yóbboo àjjana loolu ay mbir la nga yaakaar te ñu wëy ñu wëy nga xam ne xamul xamul sa ndey xamul sa baay yow nag nga dogg ci ne su ma demee àllaaxira dana ma dugal aljanna mbokk lii xel munu ko nangu moo tax suñu borom ne amuñu xel ci duñu dégg waa sawara lu ñuy rëccu law kunna nasma'u aw naqil boo amul xel boo xalaatee it bu ñu la waxee nga dégg waaye suñu borom ne na amuñu xel ci duñu dégg kon ñoo gën a sànk bàyyi ma yi te it mboo ko xamal ne bàyyi ma day ñoom ñi nga jaamu seen borom ñi ngi sujuutal yàlla ñi ngi sabbal yàlla alam tara anna allaha يسجد له ما في السماوات ما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس amul benn daaba buy dox ci kaw suuf wala picc buy naaw ci kaw kullun qad alima salaatahu wa tasbiha ñoom ñi ngi wéetal yàlla bokkaale wuñ ko ak dara wommatul yàlla doomu aadama bi xelluwul rek moo naan fa ñukk boromam ba ko bind di yaakaar ak sukkandiku ak di jublu ci keneen koo xam ne moroomu jaamam la boo xam ne li ko war moo ko war ci yàlla yal na yàlla gindi ñu gëñal ñu suñu njaboot te gindi bépp julit yal na yàlla wërsëgal ñu pas-pas bu sell boole ñu ca mbooloo mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ñu yàlla tënk alquran nekk lu ñuy lënkoog moom yal na ñu yàlla musal ñu koy gàddaay ci bépp forme gàddaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw sabu ras comme ni ñu la ko waxee rek la nga xam ne nii ras danay firi ak ak tabbal mooy ñu ne yàlla dafa yónni ci ñoom ab yonent bi yonent bi ñëwee waar leen waa dëkk bi yépp jëkkante ko dem ca seen teen ba sànni ko fa mu daal di fay mission fa la yem te loolu it ñoo xam ne bari na ay yonent yoo xam ne bañ jógee ba wax lu safaanoog le peuple bëggam fa la ñu leen reyee moom la borom bi wax naan kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun bani israil dañ ne rey nañ lu ëpp trois cent ci ay yonent heure bu ab yonent ci ñëwee wax leen lu leen neexul la gën a woyof ñu weddi ko la ëpp ci ñoom dañ leen rey loolu ñu ne kon moom lañ def asabu rasi allahuma lu dul ku mel ni lañ ko waxee ibnu jarir at-tabari nee na mooy asabul uxdud ñi nga xam ni ñoom it dañoo bi yàlla yónnee isa ibnu mariam ca boor ba nekkoon ca yemen nekkoon ci diine yahud ñu ne ko am nañu fi indi diine bu bees dafa gas benn ngaareew fossé bu rëy dajale waa dëkk bi ñu gëm diine yi nasaraan yépp ne leen ngeen delluwaat ci suñu diine wala ma taal leen ñoom it ñu gëm seen ngëm yàlla dogal mu jël leen taal leen ñoom ñépp moom la borom bi di nett ci wasama isatil buruj ñu ne ñoom ñooy ashabu ras ñi nga xam ne ñoo doon jël nit ñi di leen sànni ca sawara wa ñaari version yooyu yëpp am na ca wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam ndax en fait ndax ay zikr dana la tee gént bu ñaaw déedéet zikr sa warugar la defal say askar gannaaw ba nga wékku ci yàlla li wér moo di ne ni seytaane yi duñu la jege bu dee da ngaa jàng ayatul kursi waaye du tee ngay gént gént dafa am façon yu bari gént dana jóge ci seytaane gént dana jóge ci jaxas bi sa yaram jaxasoo loolu mi ngi noonu su ko defee yow jullit ngallaawaay dalalal sa xel te la abi qataada al ansari waxoon nee na daanaa gént benn gént su ma xëyee suba dama naan adduna tukki na ba baa nag may dégg yonent bi alayhi salaam ne gént gu neex ci yàlla la jóge gént gu naqari ci seytaane la jóge kenn ci yéen bu géntee lu ko naqari na ëf côté càmmoñam ñetti yoon te yàlla yàlla na nga musal ci seytaan yàlla yàlla na nga ma musal ci ayu lii ma gént ca seytaan suñu borom may na ko mu nekk was-was ci doomu aadama même bu ko jegewul mu ne nag xam leen ne loolu boo boo ko xasee ba wax gént googu du la lor abadan du la lor loolu moo tax ba la ca yonent bi teg rek mooy bu ko nettali kenn da ngaa gént dee ñu lay daggati da ngaa gént ay sa sëy tas da ngaa gént ñu dàq la sa liggéey da ngaa gént sa kër màbb da ngaa gént lu nekk bu mu la déranger ëffal sa côté ndek càmmoñ ñetti yoon yàlla yàlla musal ci seytaan musal ma ci ay li ma gént boo xëyee suba melel na dara xewul lii la ab jullit war a gëm ni ko yonent bi waxee noonu noonu la demee mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam yaakaar naa comme bëgguñu guddee ak jataay bi buñ ko mënoon di gën a wàññi sax ñu koy gën a wàññi yàlla na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain